te ku kulli ku joxe xam ne liñ ko lim joxe woon ngir ñeewante ci Balla Fall ak jarbaatam bii ndog mi dal te doom yëpp doom lanu ñu ne dana danañu ànd ak au moins ay seere yoo xamante ni biir ñun ñëpp ñu gisandoo ko ndax kuy def ku ne boo sañan la ngay def yegg fa tax nga di ko def buñ gërëmee nag Cheikh Tidiane Ndiaye mii gërëm nañ Mbàkke Bawol gépp ndax moo doon coordonné lépp Moustapha Diagne bii bu Mbàkke sama gox bu ñu ko santee mel na ni sant nañ bokki Mbawol bi rek ndaxte am na ñoo xam ne au delà de ñu doon joxe sax am na ñu doon exercer seen bopp ci kër gi di wane seen yéene ci ngóor si ngóor si it na gën a góorgóorlu sa ndey liggéeyal na la loo ma sa góorgóorlu na nga ko yokk say waajur ak i ñaan ñoo boof ci sa kaw waaye lii kon tey jii waxatul ko na santaat bu baax ca dolle topp sa ak sa baay ak sa nijaay ji moom Balla Fall mii day bu yuuxoo Mbàkke Bawol ñu bari wallu ko ndax ku mës a am problème ci Mbàkke Bawol Balla Fall taxaw na kon nag bokki mbakke Bawol ak li mbakke Mbàkke am ngeen sant am ngeen gërëm te it nii la maam yi daan def de ab tool bu masaana të ñoom ñëpp ñu xëy daje sotoo ko soxla su masaana të ñoom ñëpp ñu xëy daje sotoo nii nag yoon waa ngi nii man dama doon proposé sax na au lieu ñu bàyyi ba musiba ñëw ñu dog di yuuxoog di dajale est-ce que Cheikh Tidiane yéen lii comme suñ borom war nañu ni mbir mi demee est-ce que mënu leen wut benn kees boo xam ne chaque fois minimum un million dana fa mën a tëdd ndax lii dootu fi jógaan bu dul ko blessé di ko faatu wala ku ittewoo ordonnance wala ku ittewoo ndimbal. jikkoom mu di leen jubbanti man euh, bu amee it yàlla nañ ko yàlla boole jariñ ñun ñëpp ci kàttanu yàlla maa ngi leen di sant yéen gërëm wasalaam fi ngeen bëgg a àggat yàlla na ko suñu borom yàlla àggale fekk ko ñun ñëpp tatal ko jërë ngeen jëf. Euh, di nuyu vraiment association bi nga xam ne ni mooy Mbàkke sama gox euh, ci lii nga xam ne def na ko muy lu rafet loo xam ne ni mooy wax dëgg yàlla yëfi solidarité ndax comme ni ko sunu grand Balla waxee rek. Euh, mooy li nga xam ne Mbàkke ñun ñëpp ñoo ko bokk Mbàkke ñun ñëpp benn lañ euh, kenn ku fi am lu ko nax kenn ku am benn jafe-jafe rek daanaka day mel ne Mbàkke yëpp moo ko am suñu rakk ji nag wax dëgg yàlla bi ñu ko déggee euh, xëy na fekkuñ fi fekkuñu fi woon ñu nekkoon bitim réew ñu wax ñu ko muy loo xam ne ni lu ñu touché trop trop trop la woon mais nag bi ñu ko déggee aussi ah, wax dëgg yàlla waa Mbàkke yëpp daal di kenn ku nekk jël sa dërëm ak sa ñaar dërëm def ci ñu dajale ko ba mu doon benn somme bi ñu jox ko ko te wax dëgg yàlla xeeb ko bu baax a baax ndax buñ sañoon maanaam dana ëpp li sax wante it dafa am loo xam ne ni mënoo koy def ñëpp yëgandoo ko benn yoon wala ñëpp am man joxe ndoo mais ñi nga xam ne ni si joxewuñ ci tamit dëgg yàlla sant nañ leen ci baax a baax gërëm leen ah sunu grand ball nag wax dëgg yàlla day koo xam ne ni moom moo ñu yar comme ni mu ko waxee muy boo xam ne ni xam nañ ko bu baax a baax xëy na kii moom day eh, xale ci ñun ndax <laughs> wax dëgg yàlla eh, man xaw ma ko bu baax sax waaye wax dëgg yàlla day day xëj na day xale ci ñun quoi mais li nga xam ne ni daal moom la ñuy rafetlu mooy muñ gi nga xam ne ay mbokkam am nañ ko surtout yaayam gi nga xam ne baajanam gi nga xam ne wax na léegi muy wax bu rafet rafet rafet boo xam ne aussi képp ku ko dégg rek dina xam ne maanaam lii dal na leen wante nag wax dëgg yàlla sant yàlla lañ ko def di nuyu aussi vraiment yéen ñii ngeen xam ne ñëpp yéen fi teew eh di nuyu sunu grand père Seck parce que moom daanaka buñ ko tuyoo rek nuyu nañ yëpp quoi parce que mënoo fee nekk di lim Euh, di lim ñi nga xam ne ñoo ci nekk di nuyu aussi waa bitim réew ndax waa bitim réew dañ cee def ñoom ñëpp ci biir am na ci ñoo xam ne ni bañ cee def sax dañ maa xamal carrément ne bu bind sunu tur man leen ankay il faut que ñu bind tur yi pour leeral nga xam ne kenn ku nekk ñu xam ne dërëm bi nga ci def yegsi na kon nag ñi ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di gërëm aussi journaliste yi yéen parce que yéen li tax maanaam affaire bi yegsi fii mu yegsi yéen la ndax à chaque fois lu xew yéen ko informé parce que ñun ñi daanaka yéen lañ ko yëgee yéen ñu ko won yéen a ñu won image yi yéen a ñu won li nga xam ne moo fi kon nag sant na leen ci bu baax a baax di leen gërëm te fuñ mën di demit gis nañ ne à chaque fois fu ay jafe-jafe amee ci Mbàkke mbaa lu mën di doon rek ngeen taxaw ci kon sant na leen ci gërëm leen ci bu baax a baax di gërëm mbooleem ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ak waa Mbàkke gépp jërë ngeen jëf